c'est Madame Fatou Bokoum, PCA de la mutuelle Dole Jigen, dénommée Dolchi. Voilà, vous sortez d'une assemblée générale, qu'est-ce qu'on peut retenir Merci beaucoup. On sort d'une assemblée générale. Ça fait ans maintenant que nous avons mis en place notre mutuelle d'épargne et de crédit qui s'appelle Dole Jigen, donc une mutuelle créée par et pour les femmes. Depuis 2004, nous avons reçu l'agrément de l'État et nous travaillons avec les groupes sensibles, les groupes socioprofessionnels, euh, à dire donc des femmes. Bon, c'est vrai que c'est une métier créée par les femmes et pour les femmes, mais cela ne veut pas dire que ça s'arrête seulement aux activités des femmes. Nous avons pour les hommes. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes allés très loin avec cette mutuelle. Nous avons démarré avec nos propres fonds pour le, la table pour mettre en place notre mutuelle. Parce que nous nous sommes rendus compte que les des fonds très euh, élevés pour la garantie et nous nous sommes rendus compte aussi que c'était difficile pour une femme d'accéder à des crédits au niveau des grandes banques. C'est pourquoi nous avons mis en place cette travaillé autour de la mutuelle, nous avons sollicité des partenaires et les partenaires étatiques nous ont répondu. Aujourd'hui, nous travaillons avec le fonds, le la fonds d'impulsion aussi à la microfinance. Nous, e. nous travaillons avec le PASNE qui s'occupe de l'équité de genre. Nous travaillons aussi avec euh, le, le Fonds national de crédit de femmes. Tout ça, c'est des programmes de l'État que l'État veut bien mettre en place au niveau des femmes pour leur permettre vraiment de développer leurs activités économiques. Mm. Alors c'est ce que nous appelons dans notre euh, l'adage des fonds affectés. Ces fonds affectés nous ont amenés loin parce qu'aujourd'hui, avec nos efforts et les efforts que ces fonds-là nous ont fournis, nous sommes arrivés à un encours de crédit de plus de 100 millions, mm-hmm. avec une possibilité d'épargne. Parce que au début, lépargner n'était pas de culture, les femmes n'avaient pas le temps, ou même la culture d'épargner. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'avec euh, les exigences de ces fonds, nous sommes arrivés à mettre en place des fonds d'épargne au niveau de notre métier. Mm-hmm. Et vous, vous, vous, êtes à un niveau de recouvrement également appréciable, puisque mm-hmm. les partenaires vous ont euh, félicité. Quel le secret de, euh, de votre mutuelle simplement, d'abord, nous sommes des mutuelles de femmes. nous finançons des femmes. Et nous nous basons en tout cas sur la crédibilité de ces femmes-là. Tous les projets qui nous viennent à main, nous les examinons d'abord pour savoir quel type de groupement qu'est-ce que le groupement fait, quelles sont ses activités. Et euh, fort de ces enquêtes, nous, nous instaurons la confiance. Donc nous faisons en sorte aussi qu'il n'y ait pas de détournement d'objectifs. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, une femme peut prendre 2 millions, 1 million et mettre ça dans des problèmes de gaspillage, dans les cérémonies familiales. Et ça, ça rend un peu difficile les questions de remboursement. Donc c'est pourquoi nous nous mettons toujours en avance l'activité de la femme. Comment elle fait pour que fructifier ses activités. En Outre, nous avons aussi mis en place un comité <clears throat> de, de, de récupération du crédit. Il y a un, euh, le, parmi le personnel, il y en a qui s'en occupent, et même les femmes élues aussi sont constituées en comité pour récupérer. Nous avons consulté aussi, c'est vrai, il faut qu'on rembourse euh, des fonctionnaires, des policiers en retraite que nous payons par la tâche pour nous faciliter vraiment la diligence, en tout cas des dossiers qui ne sont pas recouverts. Quoi. Certaines mesures également ont été prises par l'Assemblée. Euh, quelles sont prises, euh, ce qu'on appelle le quitus dans une Assemblée générale. Donc nous voulons ouvrir deux guichets à Médinefal, un extension et un guichet à Hambourg. C'est le cutus de l'Assemblée. Nous voulons rehausser aussi notre crédit qui avait comme plafond Aujourd'hui, le plafond est à 3 millions. Nous avons rehaussé la durée qui était de 1 an. Aujourd'hui, c'est un an et demi. Voilà le cutus de l'Assemblée. Madame Sow Koumba aw nekk gérante de la mutuelle d'épargne et de crédit dooleel jigéen de Thiès McDolji. di remercier sunu partenaires yi parce que tey FONGIP ñëw na euh, euh, fi ñëw na. Euh, PASNEC ñëw na développement communautaire nga xamante ne ñoom ñooy travailler ak waa PASNEC les cibles sensibles euh, ñoom ñoo ñu affecté les fonds euh, par le ministère de la femme et de l'entrepreneuriat féminin. Mhm. donc assemblée générale bi pare ngeen ci tolluwaay mutuelle mën naa ne am na tey ji tolluwaay boo xamante ne nii bi ñuy commencé en 1999 vingt ans déjà. Euh, bi ñuy commencé nous avons que 300 femmes. actuellement nous sommes waa actuellement nu sommes à 3666 femmes. ñetti junne ak juróom-benni téeméer. voilà donc euh, mën naa ni donc évolution membres yi am nañ évolution épargne bi am na évolution crédit bi itam am na mhm. waaw. wax épargne bi presque toll nañ ci cent et quelques millions. donc mun moo tax ma ne évolution épargne bi am na évolution membre bi am na ndaxte dañu créer benn tout petit crédit boo xamante ne nii presque daaw mën naa am benn entrée euh, de membre boo xam ne am mët nañ plus de quatre cent et quelques membres euh, tout petit crédit boobu ñu ngi koy defee euh, da ngay ñëw lépp bëccëg bu nekk nga ñëw fay si wala par semaine hebdomadaire nga ñëw fay si donc biñ ko defee gis nañ ne jigéen ñi sonnoon mënuñu ubbi compte ak 8000 francs ñëw nañ ubbee compte ak 3000 francs buñ demee dinañ am épargne ak 200 francs journalièrement di ko épargner pendant 50 jours buñ ko defee am 10 000 francs mu ñëw euh, mottali 3000 yooyu 3000 yooyu nekk euh, sa adhésion totale nga dem ba épargner tey ji mën naa ci cibler quelques groupements yoo xam ne bi ñuy ñëw 3000 francs la ñu amoon actuellement ñu ngi ci 150 000 francs d'épargne ah donc donc ki leboon cinquante mille bu demee ba retrouver wu ak euh, cent cinquante mille ci compte am donc mën na ni vraiment mën naa ni mutuelle bi foofu bu ko neexee mu ni euh, vraiment euh, atteindre na objectif am. ci ñoom da leen di lebal encadré leen pour ñu am ñun dañ leen di lebal encadré leen suivre leen sur le terrain dañuy dem sur le terrain xool leen balaa ñu leen di lebal tam peut-être loolu si suñu secret la balaa ñu lay lebal dañuy dem xool ndaxam am liggéeykat nga wala doo liggéeykat. loolu bon loolu ñun analyse lañ koy wax analyse du dossier analise financière la dañuy dem analyser nit ki ndaxam am day liggéey wala liggéeyul boo liggéeyul jarul ñu lay jox xaalis mais bu fekkee yaa ngi liggéey amoo doole laa ñu booster la jox la doole lebal la nga liggéey ñu encadré la formé la man loolu mooy sama liggéey. lan mooy mébétu at yi ñu jëm ak yi génn ci. at yi di ñëw euh, mooy li ñu mébét rek ndaxte waa Nianing dañ ñoo woo barki démb le 15 ñu ngi woon Saly ak Nianing mm. dañoo bëgg ñu ubbil leen guichet euh, waa Euh, Medina Fall dégg ngeen leen ci salle bi nee nañ ñu ubbi leen guichet docteur Ndiaye tamit euh, muy responsable politique fii à Thiès daf ñu indil ay membre am wax waa FONGIP fonds yi ñu joxoon daaw ñu leb ko ba mu jeex ba fay leen ba mu jeex mu indi ay membre am ne léegi nañ leen loger ñoom ñëpp euh, dolji loolu lu am doole la ci ñun ñu ngi yaakaar ne peut-être mutuelle bi dina fi gën a màgg ñu gën a dimbale jigéenu cees hmm, bokk na si mébét yu bees également yokk yenn financement yi. waaw financement yi nee nañu dañ koy jëlee ci million la doon yem dañ koy yokk ba 3 millions beneen bi ñu ni financement beneen bi durée bi un an la woon ndax court terme lañ doon def léegi ñu ngi def moyen euh, et court et moyen terme donc euh, muy donc 18 mois ñu ci jaajëfal ñëpp nag di ci jaajëfal assemblée bi ko euh, décidé